yàlla defuloo kenn. Eh, salaamaaleykum wa eh, rahmatulahi taala wa barkaatu mbokku téléspectateur yu mbokku Kabir TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay macha allah di nuyu ki nga xamante ne mi ki ma jàkkaarloo nii eh, mooy ma Mansour ñu ngi koy nuyu bu baax a baax sama caméraman bi tey nag ñoo ngi fi nga xamante ne mooy. Dalifort ci ki nga xamante ne dootuñu ko présenté bépp euh, téléspectateur bi ñuy seetaan ci Kabir TV mooy oustaz Alioune bay euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaare di amaat mbégte bu baax a baax a baax macha allah di sama xarit di sama soppe laataa ñuy tàmbale émission bi moom dañuy raag ba kenn ku ci nekk rek gis. <laughs> <laughs> Ah, di santaat yàlla bu baax a baax ndax nit ku oyof la macha allah nit ku baax a baax a baax la sama xarit la di sama soppe moom lañ fas yéene tey dalal ci li nga xamante ne mooy Kabir TV ah, dañ koy bàyyi mu nuyu euh, téléspectateur wu Kabir TV mbokku internet yi asalaamaaleykum oustaz nuy naa la bu baax a baax di la ziyaara. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu soxna Fanta maa ngi lay nuyu di nuyu Hadj Mouhamadou Mansour Diouf mi. ak eh, mboolem téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy topp Kabir TV ci seen i programme yi am solo yi di yóbbante nuyoo ci sama xarit sama sama sama mbokk eh, Kabir seen mi nga xamante ne mooy fondateur u eh, groupe bi di ko ñaanal jàmm ak wér di xaar say question incha allah. Euh, oustaz gannaaw bi ñu nuyee téléspectateur mbokku kabir TV mbokku internet yi oustaz tey ñu fas yéene ñëw indi tey thème boo xamante ne bu ama am am solo macha allah euh, oustaz dañuy gis ni jamono juñ toll ni euh, di xool yenn seen i jamono bi ngeen di ut soxna wala ñi takk sëy ci en tant que imam ci jumaa yi ci jàkk yi ñu gis ni jamono juñ toll ni oustaz Alioune bay Euh, nekk na loo xamante ne phénomène la euh, ndax jigéen buy sëy ak borom këram ndax bëñ ak làmmiñ ñoo ñooy ànd macha allah dañuy gis ni léegi oustaz jamono ji ku ci am problème rek yaa ngi dem ci internet bi wala yaa ngi dem ci rajo yi nga jàpp ne xëy na peut-être sa euh, euh, aajo foofu la war a euh, fajoo wala yu yu yu demee noonu en tant que imam oustaz loo ñu mën a indil tey loo xamante ne mbokku internet yi mbokku téléspectateur Kabir TV rawatina soxna yi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci néegu sëy ku ci jàng déglu lii rek wala nga seetaan amaana lan nga ci mën a jëlee loo xamante ne njàngat la. waaw jërëjëf <clears throat> soxna Fanta maa ngi lay nuyu baax waaw moom day mbirum sëy bi nga dugg nii ak fi jamono bi toll ak ni nga xamante ni noonu la ñuy xawente ay sutura ci biir réseaux sociaux yi mm, aspect bu rëy bi nga xam ni mooy sëy dañ ko delloowatul ci cosaanam mooy li taxoon sëy jóg li taxoon sëy jóg jaamu yàlla la Eh, ci la ñuy daan fonde famille eh, ci nga daan yëge sa dignité ak sa personnalité ci nga daan préparer sa doom ndax itam sëy daanaka mën naa la ni su ma la ko doon misaal <coughs> boolu ceeb la rek bu ñu teg ci kaw lépp di di lem walla muy lu neex ci bool bi waaye li ci suuf yépp lu naqadi la soo ñëwee ci sëy commencement bi lépp bànneex la waaye li ci biir yëpp jihaat la ak góor góorloog jaamu yàlla la ngir lan dafa am looy construire mooy doom ju baax doom ju baax jooju nag yaa ngi ko mën a amee ci biir sëy man ko amee tam ci sa kemtalaay góor góorlu yàlla ci lay fayee euh, jigéen joo xam ni muñal na jëkkëram góor góorgóorlu na jaayante sëy te yàlla tax féministes yi nag ak yenn occident yeeg yenn intellectuels yi bu ñu déggee la ne mais non li taxawul parce que am na ñoo xamante ne seen sëy nii la demee te ñoom barkeel na ñun fekk na barkeel du am xaalis ñu bari yaakaar ni ñu fal la président de la république mbaa ñu fal la président assemblée mbaa nga jiite aw nit mbaa nga yor ay lias yu bari muy xaalis moom lañ jàpp mooy tekki waaw tekki nag du loolu xam nga tekki mooy tekki li say ay ëmboon ndax kuy sëy si ku nekk am na ëmb boo xamante ne moom nga moom nga ëmb mooy muñ log naqar <clears throat> log aw xas log aw saaga ndax jigéen ku ko ñee mos nga koo yërëm ku ko ñee mos nga ko yërëm léegi nag li jigéen gi muñ mooy sama doom ji bu màggee naa ko naa ko muñal sëy ngir sama doom ji nga xamante ni séq naa kook moom te mënatul ma bëggatuma ëllëg di am yenn doom feneen yu bokkul ak moom kon naa ko muñ doom jooj nag moom ngay tette di ko tette muñ tam dëmm gi lay tam dëmm muñ gaarawaale gi ñu lay gaarawaale muñ saaga lay saaga muñ lépp ba doom jooju su màggee fu mu jaar dina barke ndax yàllaa la koy téel ah, def ko personne boo xam ne nii il faut mu di yilif ay moroomam il faut mu taxaw diriger il faut mu taxaw nekk ku ñuy laaj xalaat ndax yaayam dafa tekki li yaayam ëmboon loolooy teg ñu nag dañu yaakaar mooy ko am xaalis xaalis nit mën na ñàkk judd sax ci buum ba pare am xaalis nit mën na nekk yaayam nekk sax ci ci baar yi wala papaam ak yaayam daje ci baar yi ba say am ci kooku màgg den nekk nekk njiit loolu la bëgg wax rek ne la. lépp loo fi ñëwee nit ci xaalis ku dul sangu janaaba ma am nag tubaab yaa ngi nii gëmuñu yàlla baaba gëmuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëpp mais ñun li ëpp ci lu ñuy ter lool ñoom ñoo koy defar di ko indi kon tekki du loola tekki mooy nga am mujj rafet am ngërëmu yàlla fii ak fa nu jëm ba pare bàyyi fi nag lu ñëpp di teg ku mel ni maam Jaara Buso mu fi bàyyi ku mel ni maam Fawade Wele ku mel ni maam Astu Jànq mag ñu baax ñi maam Kumba Ndoy way jur maam limaamu ku mel ni ñooñu booy xool tam démb ko mel ne Khadija nga xam ne Khadija am na borom kër yu bari waaye ci yàlla yàllaa ngi jaarale tekkeem ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon femme bi gën a riche ci Makka borom ndomba tànk yeeg boroom cër yéeg ñëpp la seet si nga teg leen fële seeg miskin boo xamante ni yorul dërëm nga jaamu ci yàlla ba tey mën naa la ne yi ñu fiy sukkal yëpp soxna soso leen jur mooy mooy mooy mooy Khadija Khadija moo jur Fatima Fatima moomu moo jur Asan ak Useynu te surafaa yi ñu cëpp foofu lañ déparé ba tey ba tey jeexital bu naan ñii ci Yonent bi sallallahu alayhi ñooñu ñooñu la doon donc loolu mën laa jàpp mooy tekki donc loolu mooy mooy mooy mooy mooy aspect moo taxoon say jóg fondé njaboot fondé famille. ba pare bàyyee fi looy luy continuer mission bi loolu mooy doon sëy moo taxoon bu ñu ko daan takk ñu ko yóbbu ci jàkka ja yóbbu mu mbooloo mi say mbokk yow ko jigéen ki ñëw mbokki ko góor ki ñëw waa jàkk ji ñëw dëkkandoo yi ñëw jàkk ji fees dell ba ca biti voilà ñu xam ne kii tabaarakallaahu takk nañu ko yooyu nga mu wóor nag di nga rusati dégg ni ñu nga lay fase bàyyi nit ki yooyu manoon mais léegi na xoolal léegi li xew léegi lix la bu njëkk ñeent tranche rek wala lu loo xamante ne mën nga ci amee sëru dënk la ci des yëpp sutura la nga sëy ci mais léegi xoolal jigéen ngay jox may gu njëkk un million euh, defal ko réception ba daanaka un million cinq cent lu togg yàgg place ba ngay jël ak musique yeeg tàggkat yaag tàggkat yaag solo ba ngay dem ak yëpp boo koy xool mu dem un million cinq wala un million nangam nangam yëpp nga fay ko espèce nga dem sëy mu jël la appartement boo xamante ni trois cent mille par mois ba boole ak avance deux mois wala mois yëpp ñu fay nga nga nekk fa ak moom ndey newu fa bàyyi newu fa yaag moom képp mm-hmm. bu seen dem jeexee nu ngeen def da ngeen dugg ci détail bu seen dem parce que si dem na nga war a def estage te léegi xale jigéen li ñu gën a bañ mooy dem kër goro da yàpp nga ne yow ak sa waaye jegaan yéen ñaar dong ci seen ci biir kër kenn war leen faa fekk kenn war fa ñëw xanaa boo am ko faa fekk mbir naan la doon mbaa booy mbaa chauffeur bi nga xamante ne moo leen di yóbbu loolu nag. mais loolu tamit euh, gisuñu ci tamit euh, par de responsabilité ci góor ñi parce que tamit bu fekkee ne bëgg nga soxna da nga koy wax carrément li fi nekk. su mënee dem toog kër goro mu toog su mënu tamit nga xam ne loolu la yàlla dogal mënul te boo xoolee yéen bu njëkk ba li am bu njëkk ba ak léegi li xew ci jamono ak xale yi nu ñuy sëyee oustaz différence bu ci am loo ñu ci mën a indil. non amul part de responsabilité bu ci góor maanaam li ma wax itam général lu nekkul lu général maanaam du ñëpp ñooy def li ma wax. Eh, ñeen nat ñoo ci ñoo koy def ndax nit moom bu amee nijaay ju mat nijaay wala moom bàjjen bu mat bu caaxaan jotee xam nga fooy dem di fa caaxaane waaye bu fulla ak fayda jotee nag ak foon dañ njaboot boo nooyee bopp say mbokk duñ nooy bopp parce que dañuy xam nañu fa nga xamante ne fa la ñuy samp ak njaboot xam nañ fi ñuy fonde njaboot euh, ñi nga xam ne ñooy sëy te di sëy ci internet bi ñoo tax mooy wax mooy question bu jëkk bi ñu ne ci biir internet bi di sëy nga xamante ne seen lépp ci internet bi la bokk na ca mooy li nga wax léegi takk goo xamante ni da nga daa def Euh, live ci saasi wala nga def sinap. oustaz mi dafa tegu ci temps bi de xam na lépp lu xew ci internet bi. ma du ma xanaa du ma sénégalais man kay <laughs> sénégalais la parce que même bu ma dundul loolu wala kii ma loolu dama koy gis dama parce xam naa li ñuy li ñuy dund donc <clears throat> tey booy waaraate mbaa ngay imam mbaa ngay oustaz di wax ci kanam nit ñi bu la nit ñi amee ëppee dimension jaratu nga leen di waar. donc moo tax imaam ak oustaz ak ñëpp ñoo ci yem kenn ku nekk mën def loolu mais nag mën nga ko xam. waaw mën nga ko mën nga ko xam. bu defee la cay njëriñ. nga mën leen ko wax la cay loret nga mën leen ko moytu lool. day mm-hmm. nga moytu ko rawat na ñu itam ñu am njaboot am nañu man am nay doom yu jigéen ñoo xam ne ñoom itam dañ ciy toll. Mm-hmm. loolu mooy problème bi. ku defee am na ñaari heure yoo xamante ni dafay am ci sëy. Mm-hmm. ñu dem jàkka ja takk ñibbisi ndaw si dem salon ñu jógee jàkka ja ñëw ñëpp akolaat ko ñëpp di ko fóon di ngay jabaru jaambur loolu bokk na ci yi nga xamante nii lu ñaaw la te nit ñi bàyyiwuñ ci xel ñaareel ba bokk na ca la gën a yàq sëytam mooy cat ndax la nga solu am na ñu koy dugal léegi ci internet bi mm-hmm. dugal ko ci whatsapp yi lekk gi place yi li nga sol li nga mariné woo li nga sumarñi koo li nga yëpp ngay jabari jaambur te yàlla waxoon ni nag léegi waqar na fi bu buyutukunna euh, sax leen seen biir kër yi bi nga nekkee jabaru jaambur ci nga waroon gën a sax ci biir kër yi léegi bi nga nekkee jabaru jaambur ci nga gën a fu ne fang ci biti nag ñëpp xool li nga sol ñëpp xool ni nga mel sa bopp bi doo ko muur doo muur sa dënn bi doo muur sa léegi tane na sax léegi bu ñuy takk sëy sax da ngay gis ni dañuy euh, teg euh, li nga xamante ne mooy kol Euh, ci seen yére yi ñuy sol ci mariage sa jouru mariage. mais modd la modd la mais du kool yàlla tax koo jóg yéen yéen du tax ko jóg modd la rek mooy genre muur yi nga gis léegi rek euh, modd la daf dafa xew mais muuraay ba yàlla doon wax doon booba lañu waroon def bu fekkoonte ne mënoon nañ ko te dégg ko mooy marié bi ak mari bi. waaw ñoom ñaar nañu waroon dem ca jàkka ja. xëy na am na yeneen diine yoo xam ne dañ koy def. dañuy dem ci seen ki kilifa ya ñu toog ñu jàngal leen lan mooy sëy wax leen lan mooy sëy ñun bu ñu demee ci jàkka ja di xutba ndax man ñun néew na loo fay gis euh, soxna si ak ku góor ki ñu ñëw mm-hmm. ay paaram ñooy ñëw ñaan bu ñu paree waxante léeg-léeg nga sax ñu am lu ñu fa raté penalty bu porte ñu waroon ko marqué mm-hmm. euh, dañ koy rate <clears throat> nan lañ koy raté mm-hmm. mooy dañ fay nekk naan diw diw ay maamam diw mi ngi bokk surtout diw di na di la teggee maam moo xam ne nii lu wax jooju rek mën na tax sëy bi ndax xale bu jigéen bi ngay wan ni yow diw mooy sa maam ci yax gi nga bokk ci deret gi nga bokk mën na ko topp ba bu demee ci kër gi mu si defee ni moom moom sang la wala buur la te sëy xare la kuy xare ji doo wane ay uh, garmee ki cang mhm. donc yooyu itam dafay am bu ko defee ñee itam daal di jël ñoom itam waaw ku ne daal jël ñu waaw ñun doom de ñun nooy seetu diw seetu diw ak diw ak diw diwee sunu maam dugg na fi génn fi leneen ñu fay jaayante affaire léegi lislaam nag bi nga xam ne moo amoon kàddu foofu moom du wax bu dee imaam yi mel na si man <laughs> sama nen da nga xaw a am da xaw a timit ñi bu xasee toog la ngay féetewoo mooy imaam ñaanal mm-hmm. ah, balaa imaam a ñaan ndax waxtu waa ngi jot ti eh, imaam. Eh? Ah. am na ci ñoo xam ne ci jàkka ji sax fa la ñu naan imaam ah, bala ñuy tas sëy nga aal ñu am nañ am nañ ci kàddu mhm. kaddu gi kat mooy présent nit ki ñun fi nu bokk ñu ñu mel nii tagg xale bu góor bi wax li <clears throat> maamam ak imaam waxal koy baaxam. Mhm. ah ñun yow ay itam am ngeen lu ngeen ci sànni ñii itam daal di jël ñoom waaw ñun kooku jigéen ki ah, baayam nii la yaayam nii la wax a wax wax ba pare mu mel ne comme ñaari mbër yu ñu war a daree ci làmb ji la. Mhm. Euh, te warul demee noonu nag loolu moo tax maa ngi soññ sama mbokk ilimaan yi euh, ñuy jël seen responsabilité ci jàkk yi ndax ki ñëw ni la damay may sama doom la tax mu romb ñëpp ñëw ci yow imaam bi war nga taxaw xamal ko lislaam lu mu lu mu wax ci lii wax ko ba mu jeex tàkk ku yàkkamte nga dem waaw ku yàkkamte nga dem léeg-léeg nga wax ji dafa bëri ah dama ne moo lay xam ne yàlla ñoru leen waaw yàlla ñoru dara ñoru leen ba ci armeel yi boo demee ci armeel yi nii nii nii di rob boo joxee ñaan yu gudd sa gaal di nga am ñu ñuy sàqi dem parce que xamuñu li ñu indi lu mu doon xamuñu li def lu mu doon waaye xam nga ñu koy xam bis bi la fa yóbboo alors que moo tax yooyu itam jaadoo na ngay dénkaane sa bopp ci nit ku am personnalité ku am sañ-sañ ku am fulla ndax boo gisee itam nit di tànn nit dafa am lu tax waaw diw xaw ma kañ la xaw ma nan la waaye bis bu yàlla dogalee li ko neex ci man nag ma taxaw bu boobaa kooko nag moom mooy xam ne man maay responsable ndax jaanam wàcc na waaw jaanam wàcc na donc su ko defee loolu dama fi am solo te sëyit boo demee romb jàkk yëpp ñëw ci imaam ni ko dama bëgg may sama doom imaam ba na préparé wu sol yére yu rafet yu jot yu baax parfumé wu gëttu yaa ngi dégg toog ci kanamu nit ñi téye micro bi wax ak nit ñi xamal leen lii mooy lan parce que am na ko ne ci mbooloo ma nga yëngatu am na ku ne ca mbooloo ma mu ngi bëgg a takk am na ko ne ca mbooloo ma jabaram nga ñaan baat am na am na am na yooyu occasion la imam bi mën wax ak nit ñi voilà bu boobaa jaanam wàcc digganteem ak nit ñi te comme lañuy dox àggaguñu bis dana jot xam naa yaa ngi may wax léegi comme yow kenn kenn takkagula xëy na man na mën naa mbus bu ñu la dee dëkk. nga ànd ak sa waay ngeen ñëw ci jàkk ji. mu nga ñëw mu to ah, loolu moom oustaz bu amee yow yaay yow yaay ñëw xutba sëy bi de ndax yow sama xarit nga sonol naa la lool. yéen ñëw moom nga danga ànd moom ngeen ñëw ci jàkk ji ngeen toog mbooloo fees del bu ko defee ñu wax leen lan mooy. bu fekkente ne ki nga xamante ne moom war naa euh, euh, war nañ ko maye te boroom këram nekk fi kooku euh, ku jigéen ki mën na assister ñëw toog ci biir jàkk ji. maanaam ku jigéen sax mën na ba ñëw parce que comme comme waayam newu fi ki euh, mën na mën na ba ñëw su ko defee ñu yóbbante te ne nag ñoom ñoo ñëw ñaan si dañu war a déglu la imaam wax woo ko téléphone ni ko ah attention suñu imaam bii kat nee na lii nee lii nee na lii nee na lii nee na lii ku góor ki ku jigéen ki tam ñu wax ko ni ko ah ki kat yaa ngi dugg ci cour de grand lii ngay li nga dugg nii jaamu yàlla la du caaxaan wax ko ko mu leer nañ su fekkee mënoo ko ko nettali ñoom ñaar nanu ñëw ci jàkk ji imaam xamal leen ni xutba bii may xutba mooy xamal leen ni bokk na ci kéemtaani sunu borom subhaanahu wa taala mooy mu bind leen yéen ñëpp ci génn góor gu ñu wax aadama ak jenn jigéen ju ñu wax ñun ñëpp ñoo ko bokk def ñu ay giir ak i xeet ak i trip ngir ñu xamante waaye gënante taxul bu fekkente ni gënante dong la kiy gën ci ñun mooy ki gën a ragal yàlla inna akramakum inda allah atqaakum jàng laaya ja daan yaa ayyuhan naas ñu fi teew ci jàkk jéen ñëpp ittaqullah da ngeen ragal yàlla ci sëy bii de wa quulu qawlan sadidan na ngeen wax wax ju jub wax ju rafet bu kenn dox ci suuf bu kenn rogojeeru bu kenn jéem a ëkku mbaa ngay jéem wax lu koy yàq wala nga ci feeñal ay góom ak ay légét non wattaqullaha allazi tasaalun bihi wal arham ragal yàlla mi nga xam ne ëllëg dana leen laaj kóllëre gi ngeen fas ci jàkka ji ak tàkkusaan tey jii naka ngeen ko doon sàmmee ku ci wax lu koy yàq dina la fudd bu ëllëgee bokk na ca xutba daal ni njàkk nag geestu nag ku góor gi ni ko sunu borom nee na wa'izuhunna bu ngeen demee ba seytaane ganas leen comme ni nga ko ubbee ci wax ci mhm. na ko waar fàttali ko tàkkusaan gi fàttali na sunu noon yi fàttali ko sunu soppe yi bu ñu déggee lii nu ñuy def mooy wax yi suuf waar ka soo ko waaree te waar gi demul fenn nanguwul sansiwul ngeen wax juruxul na ngeen nga mer merlu gàddaay gàddaay nag bala muy neex day fekkoon bi nga amee jàmm nga amoon njariñ di maye xaalis booy tukkee boo génn kër soo ñëwaatee jënd dara sa ba ñu miin ko ngay kaf di ree am jàmm ak nit ñi loo mbokk ak nit ñi ba ñu miin la xam ne yow jëkkër ju am njëriñ nga bàyyi bu am njëriñ nga jamono boo meree ni teg ñoo xam ne ah sama nijaay mi kat mer na mbaa jàmm boobaa nag bu ne nee lu xew yow itam wàccal nga wax ko li xew waaye bu fekkee ne yow sa jamonoy jàmm ak sa jamonoy ay ñooyam kenn doo lekkal dërëm kenn xamul loolu dërëm nga jékki di mer merlu dañ naan ci loolu la ñu diyal foofu parce que <laughs> amul loolu la ñuy wax voilà su ko defee nee ñaar yi ngay wax kon wax naa la waaraate wax naa la nga gàddaay ga nee bu fekkee lépp li lépp rek réglé wul nee na wadri bokkul na nga dóor. waaye nag waaw waaye dóor nag bu waxuñu nga mbëkk. ah oustaz am na góor yoo xam ne dañuy mbëkk dañuy dóor dañuy matt dañuy gat jaate. jàdd nañu yoon wa nag jàdd nañu yoon wa jigéen kenn du ko mbëkk jigéen kenn du ko dóor kurpañ dóor gi gi nga xamante ne moom la borom xam wax sax ne mooy dóor gi sax. wala ay bant bale yooyu ngay jël di dóor. bant ëpp na. musuwaar bu bu sarbet bu bees peq ngay jël. Hmm? waaw dala koy jaral. kon eh, borom dafa dafa dafa jagal jigéen lu bare. su lii see jigéen ñi fu ñuy taxaw rek waaye yàlla li mu leen defal. def sar bu bees tàq ngay jël def ci parfum. Mansour yow oustaz nii gis nga oustaz nu muy téye rek morceau bi rek di ko jéem a di jéem a incarné yooyu yow oustaz. ñëwal waa <laughs> nga dellu ci maanaam maanaam boo ko defee parfumé bu mu tooy xëp uh-huh. nee nga dikk dóor nii na Fatou Ndiaye. waaw sa morom. waaw Fatou Ndiaye sa morom. am nga <laughs> loolu boo ko defee ku xam. dana xam yow yaa ngi ci àngal ba ndax sës nga ndax lii nga ko def nii ba dañu da ngay da ngay tànn soxna lii nga ko def nii mooy avertissement la mu ngi mel ne carton jaune bu ñu bu at bi du jox joueur doo génn waaye nag boo boo ko defatee waa kañ <laughs> mu ne nag wahjuruhunna wa'izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna mhm. nee na ñett yi boo ko defee te rek lewul mhm. ah nee nag fa baasu xakaman min ahliha wa xakaman min ahlihi wut leen ay charge ci sa ko yow ko góor ki ñu ay charge ci kojam jigéen ki ngeen dajaloo waxtaan in yurida islaaha su fekkee bëgg ngeen yéwénoo ñu waxtaan ku jigéen wax lu ko naq di ku góor ki lu ko naq di mag ñi dox ci wax ci mu tuubal ko nga jéggal ko ngeen àndaat nee nañ su demee mu tuub wala ngeen àndaat mu defaat la même chose sunu borom ne attention léegi nag yaa yor sa cegal guy fa imsaakun bi maarufin aw tasrihun bi ihsaan téye ko te yàlla tax muñal ko waaw muñal ko te yàlla tax jàpp ko te yàlla tax bul ko fase waaye rek bul ko dóor bu ko dara xamal ne kii lii jikkoom la nee na muñal ko te yàlla tax mbaa bu fekkee yow sa xol mu mënu laa may nga muñ mhm. nee na nga bàyyi ko ci njëkk ak teraanga yor ko ndànk ko daal jéggal naa la bul doog fee diw dafa dëgër bopp diw dafa bon dafa def nii déedéet loolu lislaam natt la ko mhm. euh, yéew ko ndànk rek mu dem ci mbokkam mhm. mu wuti jëkkër nga wuti jabar jàmm na ñooy lii mooy xutba bu imaam bi di wax beneen ba ci des mooy mhm. yow ko góor ki nga xam ne boo gis ñu naan na ngeen ñëw ci jàkk ji dañ lay xamal ne bis ni ki tey bàyyam amatu ci kàddu yow yaay jëkkër yaay kilifa yow la yàlla lay laaj ëllëg kii noo ko yore woon ba nga sabaaram yaa ko war a dundal dana lekk ba suur lekk lu neex waaw lekk gu baax waral yow la war ci sa loos la ne yaa ko war a wodd yaa ko war a sol mu sol mu sol yére yu rafet jigéen benn ñaawu ci boo ci toppatoo rek mu baax da ngay tox ca mbedd yi di ron nekk xool ay dañ leen dañ leen defar rek ba nga ca yor boo ko defaree. am na sama mbokku jigéen ñi jigéen ñi tamit aussi ci côté boobu moom dinañ leen euh, euh, laawee bi tuuti parce que tamit jigéen boo xamante ne sa borom ko dem na liggéey war a wàcc ñëw fekk la euh, nga def mel ni nga war a mel toog di ko gàttandu di xaar mu ñëw fekk la liggéey ba sonn wàcc. ñëw jubal sa kër ñëw fekk la yaa ngi toog fee wala di xeeñ ay jën wala di def yi naka sudul noonu tamit jigéen ñi tamit war nañ ci xoolaat seen bopp bu baax a baax oustaz góor bu demee ba génn si biti di xool yi leneen parce que li mu bàyyi këram tamit dañ ko daa mel ne nag maa déglu sama itinéraire wax déglu la dama lay commencé limal lan la a wax ko góor ki su ma paree daan la wax ko jigéen ki yaa ngi dégg la ne yaa ko war a dundal nga war a lekk lu baax neel benn. wax mu lekk ci mu xam sa beeg mbaxali saaru yi di bëgg a dee. semaine semaine bu ne war na lekk yàpp. waaw bu ko fekkee bëgg nag mbay mbay ganaar. mbay picc mbaa fas xeet yooyu semaine bu ne une fois par semaine sax au moins. saa su réew mi toll nii. su nit ñaa ngi am ba léegi yaa ngi dégg neel ba neel benn. yaa ko war wodd eh. nay sol lu baax nay sol lu rafet. jëkk jëkk ko jëndal. lu mën doon rek dégg ko jëndal jigéen benn ñaawu ci moom laa doon commencé doon wax jigéen boo ci toppatoo rek mu mel na mu war a mel waaye li bon kay mooy di baax ca biti bon ci biir kër gi loolu rafetul ci borom kër da jaadul neen ñeen ñaar bu feebaree nga faj boo feebaree nga faj ka bu amee dara lu ko metti yóbbul te hôpital la te ba xam ne jëlal ko ordonnance te doo ci wetam te di ko massawu danaa ko man kay sama àdduna nar naa yàqu rek waaw ndax li man nii yaay doon sama benn yaay sama genn wàll te yaa ngi ne tëdd nangam nangam nangam mu yëg ni yow mii am nga foo ko teg yooyu yooyu say wax la. Mhm. ñett ñett laa mhm. ba. Mhm. Euh, nga dëkkal ko. yaa xam baraak la yaa xam appartement la yaa xam dëkk ba la waaye fu mu fanaan fu mu yenn fu nekk ci sa responsable loolu la war a faral juróomeel ba. Hmm? Mhm. Euh, yaa ko war a dëkkoo yaa war a dëkkoo juróom-benneel bi can nga moom moo ko moom juróom-ñaareel ba je t'aime moomam baatu aussi wala je ne t'aime pas. a ngi toj fu mu nekk ni Mansour mi jàkkarloo ak ñun sunu caméraman bi ki ñuy cadreel ñëwal Oustaz. amul dama ruus sama nijaay amul dama ruus sama papa amul dama ko sama patron la sama nangam nangam la liggéey liggéey la tem tem la. waaw dama la bëgg bàyyi ko mu xalaat ba mu wóor la ni yaa ngi ci xolam mu ne maa la raw mbaa nga jéggal ma. can gi moo ko moom. Mm-hmm. ñaar a ngi noonu. Mm-hmm. yaa koy dëkkal yaa koy dëkkoo yaa koy woddu yaa koy dundal hmm? bu feebar yaa koy faj. juróom-ñaar yii mooy mu des nag li nga doon wax léegi mm-hmm. jigéen. ñett la yoreel boroom këram ba ca jëkk mooy confiance dina la sa jëkkër wóolu bul dem foo fu fu mu yëgul bul bëre ku ko ku kenn hmm? bul bëre kenn boo ko ne maa ngi dem fii te ñëw dem ba foofa pare wëññi ku waatal boo amee envie dem fenn tàgguwaat ko. ko waaw waaye xaaral ma ne yoll bala moo ñëw ma ñëw. nga dem dajee fa Mansour Mansour gis nañ ne oustaz day nag Fanta. donc gis nga tey émission bi moom spécial la tey moom macha allah. dañoo <laughs> dañoo Fanta mu ne ah Fanta waxuma ko loolu Fanta fii la ma tàgg woon lu muy wuti fële yaa commencé indi problème. yaa ngi dégg. surtout nag boo dajee góor bu fiir. Ah. portable bi képp ku lay woo. te bañ mu dégg ko. nee nga ma woote. waaye toog ak sa kër. nga ne allo fii dafa mu réseau de xaar xaar ma génn di wuy ji foo jëm <laughs> mais loolu. non mbokku yi gis ngeen ni kii mooy Oustaz Aliou Mbaye mu si FM. <laughs> loolu loolu loolu du jaaduwul donc ak sa jëkkër nekk ci toile di sangu. ngay sàcc di sàcc di di xool mais loo fa gis na la neex. loolu euh, liñ koy def oustaz. bari na sa yu yëngatu rek tal ko yàq. Ah. waaw bul xool lu mu lay nëbb. ku lay nëbbu réer ko bul déglu ci moom ku lay wax leneen lu dul moom hmm? man mun maa nekkee ci benn néeg benn lal nit di ma la gën a xam la ngay def nag di ma ko nëbb ci biti lu lu ma koy jéem a xamee mhm. laata jasasu wala yàq tabaatu ko mbaxda bul luñutu bul yóru sa yónni wu ci moom ba bankal loolu kon ñaara ngoog de mhm. beneen ba des mooy euh, euh, kii wax naa la confiance baatam moom moomum baatam bul dem toogal noppil noppi naa waaw rek ngay féetewoo yow ndax ku la gàddu lii yëpp teggil na la lépp àddina kon yow tam jox ko baatam xam nga li ci des mhm. sëy bee ko moom mooy nopp yéen ñëpp yéen ko bokk sëy bee moom nopp sëy sunu maam yaa nga nee di sëy tey la ñu gën a nobante ndax kenn ku ne yaa ngay wax ay baat yu neex xam nga ñun jamono jamono yi nijaay la gars yi tombé nijaay. nijaay ay ay alaaji. nijaay ak alaaji mais am na ñoo xam nag moom papa chéri lañ tolloon papa chéri maman chéri hmm, façon yooyu ak si seen i bees yi ngeen xewle yéen. kenn leen raw ay ay ay kuku ay ay bébé. nga yéen weeru ne ngeen génne bu bees yéen ma dëgg na riis ci xam-xam ñu nag nijaay rek doon dégg ak alaaji. as alaaji as. waaw man sax maa am alaaji bari ñu may wax alaaji as sax. waaye yooyu sëy bii ko moom. mooy nopp sëy bee ko moom. bis bu ne deel wax lu tax ñu gën laa nopp. ñu deel def lu gën tax ñu gën laa. ay sang beeg yooyu xam nga yooyu tamit yooyu dafa neex. gis nga ak toog ci wetam di ko jay rek nag. jigéen da koy jay boo bëggee lekk sa wecc jabar sa jabar bu la ëppee mm-hmm. Mm-hmm. xam nga jàng yi bokkul. Mm-hmm. waaye sa jabar bu la ëppee salaire. xam nga nooy def di ko jay. ah waaw ah oh, la ilaha waa ma bi foo ko xalaatee xam lu ma neex si yow mooy da nga mën a créer. parade bi moo tudd noonu mu yéen mu yàlla. gisoo oustaz am na paa xam ne bu ñu takkee ay soxna ay ay ay tuutànk ne ay xale dañ leen di yóbbu foo xamante ne. bien sûr ah loolu moom moom tamit beneen chose la oustaz. Ah, waaw parce que xam nga xale yi léegi sax xam nga bu njëkk mbirum sëy mbirum sëy dans la tête sa dans la tête suñu bopp la gis nga bari na ki ñu ne mag na mënatul lii wala defatu nangam fekk na déedéet mm-hmm. xale bu xale bu kii la xale bu xale bu ñu defar lañu la amagul mm-hmm. ne ñun suñu maam yi suñu sëriñ si suñu kilifa yi bare bëri di mu déet gis ko am ko am soixante ans soixante dix ans di di yeggale di yeggale gone ko daw te te day tudd day dem wootam tudd waaw loolu <laughs> lu ko lu ko waral moo ko waral parce que mbirum sëy ci bopp la nekk waaye yow gis nga bu jamono moo tax gis nga yàlla du juum. dëgg yàlla su nee a ah, takk leen ñaar ñett ba ñeent ci jigéen ñi. xam nga sa ki nga àndal ngeen départandoo yaak moom ba ngeen dem ba am dix ans vingt ans ngeen am ay doom yoo xamante ni day toll nañ ci takk jabar na la woon amatoo jabar sër nga am sa jigéen la am na yoo xam ni dootu ko man dootu ko tal. jigéen muy gën a gaaw a sonn góor mm-hmm. moo tax bu boo taxawee dem di ko jéngu na non alaaji maa moom dong di ngay dema dem ba motu yaa yaa koy jëkk yaa koy jëkk génn àdduna ndax la sa yaram manoon sa yaram dootu ko man te góor lu mu gën di mage di gën a bëgg ko toppatoo di ko nëbb na beeg di ko di ko wax yox yu neex maanaam góor gis ni jigéen bu ko euh, bi euh, maanaam euh, góor nu muy gën di nekk mag rek gis saytaaneem di gën a bës waaw parce que loolu yëpp ci bopp la nekk yow ko El Hadj màggat ak waa kat yow kat El eh, ah, ah, mii ah wax nañ doxantu ji da nga koy dem ba danga koy xëccaat indiwaat ko li nga delloo ko ay vingt ans loolu mooy delloo vingt ans. Euh, te mbir mi du mbirum sax sëy rek ci lal bi waaye am na wax yoo xamante ne da nga koy delloo si waat mm-hmm. euh, mise en jour xel mi. Mm-hmm. yaa ngi dégg wax xel mi del siwaat bari na tey ñu bari yoo xam ne ñu nga dëkk ci jàkka ja lan moo ko waral ca kër ga nga bàyyi ku la mise en jour ba bàyyee ku la dóor mille cent foo jëm. Ah, da nga ne suba ngay dee rek. tension yeeg jabet yeeg dara yu bari lu koy waral mooy stress ca ya moo tax sëy du caaxaan ka nga yor lu mu màggat màggat màggat keroo la gën a bëgg koy ndamba bay di ko yu neex jigéen na lu mu gën di màggat di gën a bëgg ko may jàmm yenn yi dootu ci xaj moo tax ngay wuuf sa njaboot yëpp angam loo ñoom léemoo ñoom ci benn lal nee hmm? <laughs> dafa ni moo lay tax mucc loolu nag baaxul moo ndax yàlla góor bañ bañ mu yàqu moo tax yàlla ni ko taal ñaar ñett ba ñeent boo yàggee ne doo mën a maandu wala doo doo ci mën dara nga yem ca benn te itam góor moom bul topp sa bëgg-bëgg rek ba demee ba yëg nii yenn yi ko moytu gone yi bala ñu laa toroxal am na solo de moytu gone yi. ba déet xale yi xale bu ñu yarul mag day moytu xale bu ñu yarul xale bu ñu yarul mag da koy moytu. ndax amatuñu sutura de tabaarakallaahu am na solo. Eh, Oustaz xam naa ni mbokku téléspectateurs yi li ñuy tëjee rek eh, Oustaz dañu gis ne eh, maanaam jigéen tamit boo xamante ne bu tàggoo ak borom këram am xëy na peut-être am fu mu doon sëy dañuy faral di gis ne sa idda du mat sax nga duggaat ci néegu sëy loolu tey lan la leen di indil ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi koy def te man gis naa ko jigéen gu tas yàggul rek. sa idda jeexul rek nga duggaat ci beneen sëy moom la ñuy tëjee daanaka li nga xamante mooy jotaay bi. boobu nag mooy musiba bi gën a bon. kooku njaaloo la te ku góor ko amul jabar yow itam amuloo jëkkat yaa ngi ci njaaloo ndax it day jaabur jabar jaambur nga jigéen tànk sa yit dematul même bu ñu fase woon ba sa baal sa des ci amuloo droit benn yoon di sëy te say dematul waaw yi fase ñetti weer la yi day teñ ñeenti weer fukki fan la seytaan yi ganes nañ la mere nga waa ji wala boo am na foo doon liiwaatoo wala nga yéene nga koy nangam nangam ñu fase la waay waay yàq iti mu laan mu yël comme nee nga dootoo delluwaat ci moom bul bul anticiper imaam bi warul maye benn jigéen bu ne ci yidda mu yi day fase wala mu yi day yow te amuloo benn droit di labat jigéen bu nekk ci yëdda ndax jabaru jàmbur la amu ci droit euh, kon ku jigéen ki ku góor ki loolu xaraam la ci ñoom amuloo droit dem takk jigéen bu ne ci ëmb képp koo xam takk nga jigéen fekk mi ngi ci ëmb wala yaaka ëmbal ba pare bañ coow gaawante di ko takk sëy boobu lañ koy tas ba abadan abadan dootu leen seyaat bu fekkee da ko xamul nag te keneen ka ëmbal xamoo ko dañ koy tas bu masinee yi daje mat na nga takkaat boo bëggee bu fekkee mus yow mus nga ko bu fekkee yow danga ah, da nga xam lu ñu daa ëmb nga takk bu boobaa dañ koy tas ba abadan ndax mook li nga def benn la rek crime la yooyu ci crime yi la bokk xanaa du ñàkk benn yoon boo fii ñëwaat ñu waxtaan ci crime yi nga xamante ne ni ku rey nit ku ta nit kirim yi ci lii alxuraan wax ci kirim yooyu yëpp incha allah ñu ñëwaat bu soobee yàlla. sant la bu baax ci waxtaan bi. ak ni nga ñuy tànnee. Euh, yàlla ñu boole comme ni nga ko waxee léegi. sama sama rakk nga sama lépp nga wax dëgg yàlla ñu yàggoon nekk ci press bi. booba réseaux sociaux xewagul. waa ñu daan daje ngay nit ko am personnalité nag den nit ko am classe. ndax itam bañkat nga. ndax am na yoo xamante ne boo ko doon nangu kon ba léegi. paase nga fii nag yàkkamtiwuloo sa wërsëg yàkkamtiwuloo xeebuloo sa am mooy lislaam loolu mooy ngor bul xeeb sa am-am bul sa wërsëg lu def ko incha allah ajjuma baax dimanche nga baax baarakallah maa ngi lay sant. ba bàyyi bi nag. waaw bàyyi dàq bi nag góor ñun ma yàlla baal am woykat booy bu wax ni. Eh, yaboy bi rekk fi des ku jiiroo di fot. ngot yeeg jërëñ yéeg kucc yeeg yaa yaax yi xeet jën yu am solo yooyu bareetu léegi ci géej gi li ma bëgg xam nga ko léegi 4 <laughs> mètres bi fi des de bàyyi ci xel bàyyi ci xel. jëlal rek koo am fomp rek raxas ba mu baax. waaye yàlla baax na. incha dinaa ci bàyyi xel beaucoup téléspectateur gis ngeen ni moom saa su nekk bu ñuy euh, euh, bokkee jotaay rek macha allah damay bëgg lool macha allah ndax lépp kaddu yi ñu fi yëkkati dafay jëriñ askan gi dafay jëriñ euh, mbokku téléspectateur yi ñuy seetaan ci Kabir TV kii nag mooy sama oustaz oustaz Alioune Mbaye di sama xarit di sama soppe mbokku téléspectateur. tey gis ngeen ni waxtaan bi nga xamante ne moom lañu fi yëkkati ndax dañuy faral di gis ne ñun jigéen ñi lépp lu am rek tamit ñun la euh, waaye nag di leen jox dig daje di jaajëfal ki nga xamante ne mooy sama caméraman bi Mansour ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal bépp équipe euh, Kabir rawatina sunu kilifa di sunu xarit euh, Mouhamed Kabir ñu ngi koy ziyaara bu baax di di ko jaajëfal bu baax a baax moom it tamit xam nga tamit nekkul loo xam ne lu yomb Mansour nekk fu fu sori bëgg lijjante foofu bëgg a nekk ak ñun fii tamit wax dëgg yàlla nekkul loo xamante ne lu yomb mais saa su nekk rek dañuy jéggalu ndax euh, ñun mënuñu dem sans yow macha allah ci xam-xam bi ci xalaat bi ci euh, xalaat bu rafet bi euh, macha allah Kabir ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla guddal fanam yokk wërsëg bi yokk mën-mën gi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla defuloo kenn luy